fi mu toll nii munoo wax kii moo tëgg géej moo daan Boy Niang war mun ko ko wax. kon ñu jox la Pape Mbaye xanaa. dama lay dégg dama la bëgg nga tontu ma rek. am xam xam nga combat nga am géej waaye moom ay ndam nga fa am. waaw daan nga Pape yi nga fa am ay ndam la bërki démb match nii la ñu wax kon ñoom gisaguñ fa sa defet ñun wax dëgg yàlla. kon dëgg-dëgg wax dëgg yàlla amagul mbëru géej waaye bu ma da nga bëgg a dugal Kër Sa Thiès. ma fépp laa bëgg dugg. Balla Balla Balla Gaye da nga da nga ko bëgg a jox fonde. boo ko teree neex. keneen ak keneen a ci am. ban laa ko tere. instant yi VIP yi nga xam ne ñoo ne ci làmb ñoom laa war a bëree. boo yàgg Balla loolu dina doy war dama ne la làkkut ci kaas fonde jàmbur jaru ko sa kaas a tege man maa la wax sama kaas man néew fi kaasu Balla ngay wax. rek déglu ma ñëw dama ne la yow xam nga ko bul wiir wiir wax ji dama ne la waaye déglu dama ne la kenn di làqatu ci kaasu jàmbur kaasam mii ngi fi. da koy ñëw jël wala ñu yónnee moom Balla waaw moom Balla. waaye Balla nag dama dégg de gaa yay wax ne nañ moom du xaar mbër moom bu ar bi suuflee mu samp jaaga. kon dañuy daje. dama ne la. booy daa mel ni sa sa yaram mi ngi tàng de gis naa nga def benn concentration bu ndaw. waaw waaw parce que dafa am loo xam ne moo tax quoi bëgguma la wax lépp dama ne la mi ngi fi. ñu ngi fi moom mi ngi fi. yaa ngi dégg combat bi sonn na ci lu ne def na ko ci. yaa ngi dégg man an la dëgër jeex na cadre fondé moo fi des waaw ko ñëw jël waruñ jox ko ñoom ndooy ak bi ñu yóbbul ko. maanaam force danga ko koy forcer bu ko bañee jël itam. dama ne cadre fondé boo yóbbantee sa doom yi wala sa rakk yi ku ne dem jëli cadre fondé ba mu des yow kay nga war a am jom ak jëli ko loolu mën maa la ko wax waaw jeex na tàkk loolu man maa ko wax. jeex na benn kaasam mi ngi fi da ko jël si wala ñu yóbbante ko ko. kon nangu la jël si ngeen fekk ko ba géej waay jox ko ko gaa ko gaa sa combat parce que Babacar temps yëpp dañuy gis journal bi di ci bind boo xëy de presse sax lii des fois am na ñuy commenter naan la bàyyil combat boobu noonu sa combat ak Boy Niang grand contre petit bi loo ci wax yow yow sa diggante ak Boy Niang parce que tamit Boy Niang nee na madame Fonda mi bale ko du ko jëlee sa koñ man daal ñëpp xam nañ ne mbër laa te mbër rek laay mos doon te li am solo bu lii paasee ngeen dem waxtaan ak Aziz lu mu leen wax rek pare naa pour bëri. pare nga pour bari booy Niang. pour ñëpp. non Boy Niang waaw xam nga boo nee ñëpp. bàyyiwoo kenn grand bi dee ko dégg nii petit bi dee ko dégg de. waxin laa làmb na. diggante ak Boy Niang coow daf ci bari fan yi coow li jóg ñu xëy dégg ne Balla ne na baritul ak Boy Niang ndax defu fi dara ñu toogaat ñu ne sa papa génnaat na ci journaux ne loolu Balla wax du luy nekk maanaam dañuy bëri ñoom ñaar loolu lu ci Balla mën a leeral Sénégal yi yaa wax lii ak li sa papa wax noo ko gisee. man sama kàddu chaque jour benn kàddu la mosuma wax ne du ma bëri ak Boy Niang ne. sañ ma laaj sumay adversaire ma ne leen sumay adversaire Bombardier la Tapha Tine Gris Bordeaux parce que man tey bu ma nee taxu naan du ma bëri diw loolu yaakaar naa respecté wu ma sax suma bopp mais aussi tamit euh, li ma war rek ak li ma bëgg moom laa wax ah ñi nekk suma kanam ñooñu laa lim mais bu ma waxee loolu yëpp sama bopp la mosuma wax aussi tamit euh, Boy Niang du mbër mais dama ne en tout cas man li may def aussi ak li may wax dafa méngoog li may def mooy def naa fi lu fi mbër deful am naa droit am suma choix am naa droit ne kii lay bëri mais ba léegi wax waxuma kenn ci tele wala ci rajo ma ne du ma bëri booy ñaan. booy paase di paase di paase ba yegg bac. nga def bac amoo bac dootoo demaat première. Hmm, doo demaat première. da ngay defiwaat bac. mais est-ce que Balla Gaye ak Boy Niang est-ce que loolu da man Boy Niang mën na dara ci Balla gay 2. non du mën nga dara ci bàll ci ci ci Balla Gaye yàlla rek moo mën ci Balla Gaye dara. bu ñu xam nga yàlla mu wax ci côté bëre bi laay wax man. côté bëre bi la ñuy wax. waaw lenn moo ci nekk. Balla Gaye bi mu ci tolloo. nee naa la bëriwul ak Bombardier bëriwul ak Tapha bëriwul ak Gris Bordeaux te bëri naa. Yékini eh, bëri naa Yékini. mais est-ce que bu muy bëri ak Yékini dafa defe lu tax mu bëri ji ak jamono jooju wala. waaye ñoom da ngaa man ko waree kay yow yaay wax. <laughs> loolu que yow mosoon nañu wax. ci waaw yow ma ak yow ca ca yaa ngi dégg. waaw tey su fekkee ni PAM li la wër yëpp bëri naa ak ñoom. mais boo defee ci Lac de ne booy Niang ne ne ne Balla Gaye est-ce que Sénégal dinañ ànd ak yéen ci yi ñoo ko bëgg man bëgg mu ko de man damaa bëgg combat bi gis nga man suñu ñëpp sukkandiku woon ci man duñu war sax Balla Gaye euh, kii Boy Niang mais sénégalais yi ñoo bëgg Balla Gaye Boy Niang Ama Baldé Modou Lo et puis yéen tamit yéen su ma seetloo da ngeen amoon mu sawar ci kër ci waa kër Double Less parce que jóg ngeen ci Sa Thiès léegi ngeen joxoñ daal ne ne Balla rek nga xam nga tey ñaari doomu Pikine bu ñu nekkee kenn du xëcc sa adversaire u morom te Ama Baldé mënul bëre ak Balla Gaye kon Ama Baldé Modou rek la mën a bëreel Boy Niang Balla Gaye rek mhm. loolu làmb moo ko soxla amateur yi ñoo ko soxla mais techniquement sa mbër am na bagage technique bu daan Balla Boy Niang war naa mën nekk roi des arènes dama ne ndax am na techniquement bagage bu daan Balla Gaye waxaguñ ci roi ba de bagage technique doo nekk roi des arènes Balla Gaye laa wax de ba tey Père tontoo góoma de ndax am nga bagage technique bu ko daan. waaw am naa bagage technique bu ko daan mais dama ni ku amul bagage technique doo nekk roi des arènes seetal ñu nekk roi des arènes rek ñu ko fi nekk ñëpp ñu am technique bu tax ñu mën a nekk roi de arènes c'est comme président de la république du n'importe qui mooy nekk président fii tamit du n'importe kii mooy nekk roi des arènes. dama leen dama xam ma booy ñaar dégg naa ko micro bi bëri laa dëggee ba pare moom mu ne kaasu fonde bi des Balla Gaye ko moom na ko naan si wala ñu yóbbu ko ba biir këram ba tey daal yéen ngi ku ku bëgg a jox fonde bi. Euh, nee naa la xam nga man am na jamono yoo xam ma ne soxlaatul sax ñun ñuy toog di wax Balla Gaye léegi Balla Gaye mooy définir programme su ne moom bokk na ci war a bëreeg Boy Niang te moom nee na lu amateur yi bëgg loolu la bëgg kon kii la ñuy wax Balla Gaye la wax ni ko kaay nga bëreeg booy ñun. ñun. waaw mais kenn du waxati booy ñun demal dëkk ba euh, euh, Balla Gaye. Talla baa ngay wax ak dëggool am na lu koy jox cey Talla xam nga lii daw na yaram de nga nekk ci géew nii sa doom am na lu mu ko jox am na lu ko jox. mu ngay dem di ko booy ñang topp ci gannaawam ndeysaan taala ku jur doom deewoo yàlla nañu yàlla may suñu njaboot nekk njaboot gu am barke barke yonent bi sallallahu alayhi mu ngi koy sottil ndeysaan taala oo taala waaye la dëgg nga sorok ba ñuy wax ak moom xoolal nag am na koy wax ak moom taala naa ñëpp Talla Ndiaye ñu ngay visite gaa yi Lac de Guiers yëkkati nay loxoom ñu ngi koy seet passé visite ndeysaan tey le 13 juillet yàgg nañoo coow combat bi am na lu boy ñan suy ca kanam ga laa ilaha illallah eh dëgg supporter yi ku ne ngay ñaan boy ñan Lac de Guiers numéro 2 noo koy def tey boy ñan ndax Lac naan. Lac nee na ko déedéet naanu ma fondé duma ko naan waa Pikine seen doom a ngi Boy Niang e tali bu mag tali bees i ko taaf lépp ci Pikine ba ginnaaw raay waaye Guédiawaye am na Limamou Laye am na njaareem am na tamit marché bu waaye am na amoy lépp ci Guédiawaye seen doom a ngi ana waa Gunaas Lac de Guiers 2 ngi seen doom ay Talla Ndiaye ñuy naa ñëpp Talla Ndiaye waa France waa états sama doomu nday Youssou Ndoye ca États-Unis nuyu naa ko Talla Ndiaye l'international ak sunu yaay ja sunu yaay Penda Diawara du mën a ñàkk ma koy nuyu Talla Ndiaye Talla nuyu naa la ana jub seen te patal seen Abdou bu yankaaw wala Aliou yankaaw nuyu naa la daf may solal Abdou bu xarañ daf may solal rim kaa ku tiw borom Touba Sandaga may ñawal laa ilaha illallah maam Cheikh Anta borom Salaam Couture daf may ñawal nuyu naa ñëpp Talla Ndiaye waaye duma mën a fàtte sama waa dëkk nag waa ak yaay fa laa dëkk nuyu naa waa ak yaay rawatina sama maire commune maître Pape Sène maa ngi lay nuyu di nuyu waa Ndondol yëpp eh Talla Ndiaye bés a ñu ngay seet ñaari mbër di wax ak ñoom lak arbitre bi yow lay waxal lak wii wala dañ koy woo wala lu xew. eh Lac de Guiers booy ña nga ngay kàbbar Talla Ndiaye teel la olof yàgg na la ko wax Talla Ndiaye série ku ñëw ci pind bi nga yem Talla Ndiaye ci Leewtoo TV la Babacar ay wax Talla ay filmé eh Modou ay dawal nuyu nañ suñ DG Pape Thialis Faye. Lac de Guiers am na benn avertissement. Lac de Guiers loolu leer na DG Thialis ñu lay nuyu monsieur Diaw Aïda Diouf nuyu nañ Leewtoo yëpp daal. armi soufflé na ñu ngay lewaatoo lu waay doon jaay day lamb tey Lac de la tomboor Papa Sow la tomboor na Yaxya Joob Yékini ee eh, Lac de Guiers foo jëm boo génne ñu dagg sa xaalis loolu yoon da koy tere dañ koy dagg Taala Njaay buteelam lay jëli sotte ko ko sànni na butéel ba taala xool picc yi taala élection bi nañu ñëw lépp daa war a leer fii tey bëgguñu lëndëm ak Leewtoo TV yi eh, e du mën a ñàkk jib seen capatar seen sama rakk la sama doom maa ngi koy nuyu laa ilaha illallah mbër yaa ngi ci giw bi Serigne Ndiour borom Italie Ndongo Fall Italie Mbacke Kebe Italie Cissé ca Brésil moo jiite fan si club Leewtoo Cissé Brésil doomu ndoyu général Malika waaye fan si club 100 pour 100 Babacar bi nuyu naa leen du ma leen fàtte ñoom Cody ñaari mbër yaa ngi lewaatoo Cody ñu ngay lewaatoo bu leen ko jaawalee Ali bu yanka jaawale lii ñaari mbër yaa ngi di lewaatoo ci Leewtoo TV la ñuy lewaatoo songo bëree am wala luy am ee eh, Talla Ndiaye yàgg naa la ko wax walluk teen la ndeysaan l'attaqueur pied gauche garde normal Boy Niang pied droite fausse garde l'attaqueur ngemb lu noir wala sax bleu foncé waaye toccal ko lu weex ca ginnaaw booy Niang ngembam daa marron mu jiital kilisar bu noir takk ca bopp ba ay dàkk waa ndigale mu takk cay sangoor loxo droit ba it bëri atu daa réeroon ndax day feeñ tey waa géej way laga ngi di bëre Pikine Boy Niang ngi di bëre eh lamb Boy Niang loo bëgg dem wala lan loo bëgg Boy Niang dem wala lan combat yaakaaruma ko mu ngeen ci seeni valeur cey Talla Ndiaye Talla dara xewagul de Babacar dara xewagul Talla dara amagul de Babacar nga yaakaar kan moo war a dem ah ki war a dem de su ma xoolee ni muy bëree daa mel ni booy ña nga bëgg a dem. waaw daa mel ne moo bëgg a dem. daa ni dem lay wër de. daa mel ne day xaar ba da ci ànd ak patience. du ko jaxase du ko jaawale. waaye yéen internet bu leen jaxase bu leen jaawale nuyu naa leen. soppey Leewtoo kenn du yéen yéen a ñuy may doole waaw waaw yéen lebru woon day ñaaw. fu nu yegg yéena Talla Ndiaye Boy Niang Dégaule Lac de Guiers Ali fii ci Leewtoo TV e eh, combat ngi combat ngi avertissement verbal yéen a nekk avance waaw da ngeen di tëdd pom bëre yéen a laaloon avance ku ne yóbbu sa di dépasse di dox say soxla fii nag lay tëggal la foo dem yaa ngi fay def lu baax booy ñang ko dina ko de lak daa dóor booy ñang fayu ko du ko waaw waaw gëddante nañu ciy korosé gëddën da ciy korosé Lac foo jëm Boy jël na ko Lac aku ko da doon jëli waa yeggul da doon jëli waa yeggul da doon mu ngay jàpp faq faq na ko mu bañ Boy Niang loxo droit tam ba jàpp na fu dëgër waa la mu tee bari na Lac de Guiers la tee bëri na léegi lu fi des bëre Talla Ndiaye jàppante nañu de Boy Niang da ndengeeñ wax ba bële ca mbagg ma laa ilaha illallah ñoo nga ca Issa bu Eumeu Sène sa mbër maa ngi waa Issa bu Eumeu seen mbër a ngi Boy Niang Lamine bu Eumeu Sène seen mbër a ngi Boy Niang waaye Awa Diop sa mbër a ngi Lac de Guiers numéro waaw mu ngi nii di bëre de la ilaha illallah ne ngeen ñante saxal ko ba mu sax mu nga ca de taala yokkal safum taala dama bëgg lu leer taala njaay Babacar yokku naa sama sum Babacar ana ah, yokkoo yokku ami Sidibé son an ah, nuyu naa la madame Sidibé di nuyu sa borom kër Cheikh Sidibé sama xarit la ami dañoo yàgg madame Sidibé nuyu naa la kenn du kooku Ami Sidibé jigéen ju baax wallaay mooy Ami Sidibé Ami Dia madame Sidibé nu nga jàppante de nu nga jàppante de jàppante ba tar na foofu de hypercule dugagul Boy Niang ngi koy puus ndengeñ ba amiti Lac de Guiers ndengeñ bee ko gêné man daal lewaat booy ñaa ngi dox tuuti di avancé. waaw Babacar waxoon nga ma li ñuy wax ci signature li ci géew bokkul. wallaay Babacar la ak leer waxoon nañ laa lay wax. signature contrat moom lu neex waay wax. waaye arbitre soufflé. bu xelam dalee rek mu def li muy def. waaw loolu am na de loolu de téere la. kon Boy Niang mooy xale. Boy Niang dinañ yaay xale. kon yaa war a bëri wala bëre bi. xam nga mbëru géwél day sox xorom armée li laa ko fay daje dese ba ñuy du se du yaaykat yi boromam yàgg na maa peese nag mais nante la nante la quoi dama peese na ma ci goro bu nekk damay xool ci biir bët nii dama jëm a coytu naan ma grand pareegoo ma ne ko booy am na saa yu morom yu ma doon wax pare woo. pare woo mais bu ñu defee runkunkung fa lañ jógee ba léegi nii nit tant que mosoo ko doo ko xam mais nante la mbalak maan la mi ngi may sonn rek mi ngi may sonn mais mënu ma xam ba léegi. mais mais mais parce que moom daa jàpp ne dara nekkatu fi dara la jàpp de. waaw ah, mais ma ne ay morom am na ay morom yu ko doon yaakaar. yéen ñaar ñu tëj ci barrière yaag booy ñaar. li ci gën a neex mooy fausse garde la fausse garde la. droite ak droite. la waaw saa yi man fausse garde fausse garde su bërëg moom damay kontaan de barke Cheikhou Tidiane sama xol day seetlu guy. droitier yi. laa ilaaha illallah ba muy teg moom a intéressé bis bu ñu yàlla boole yàlla yàlla boole jàmm rek waaw. kon mbaat day gis buy. non yàlla nañu yàlla boole ci jàmm ak salaam. waaye moom it naa xeex daa mel ni de. waaw amul problème man sama man sama ay mbiru bopp laay lijjanti man lijjanti bu kenn.